dañ leen teg métit euh, li ñuy woowee ci gàttal toroxal lan ngeen di tontu ci tuuma yooyu. Euh, maa ngi leen di nuyu di nuyu auditeur bu RFM. Euh, ci laaj bi nga ma laaj. ne teg métit boobu ngay wax. moom moo jar seetaat. ndaxte gendarmerie damay dellu si di wax ne liggéeyam. daf koy teg saa su ne ci yoon bi nga xamante ne nii moom la euh, législateur sénégalais tëral euh, ngir mu ci def liggéeyam maanaam ci wàllu tóobeen boobu ngay wax euh, gendarmerie boo gisee mu teew fa dafa fekk donc le préfet de Tivaouane moo jox réquisition commandant de compagnie bi ndax mu dem daal di saytu liggéey bi nga xamante nii Euh, technicien ICS mom lañ doon def donc euh, lolu moy liñu wara ñëk léral euh li ci top nak ne ñi nga euh, gendarmerie di def ligéyam dañu fa téwon té sen téway fofu amul dara expliquer euh pour participation à une manifestation interdite euh, tentative de dégradation des biens de l'État nga xamné ne euh, ay euh, infraction la yo xamanteni suñu code pénal mom Nous teurel euh ba am ay daan yo xamanteni ñi nga xamné ne Nous la lool mom lañ leen di gendarmerie li def moy ñoñu dañ leen Nous ndaxte li doon def ko amul Ben sikki sak ñu Nous leen jébbal leen autorité judiciaire yi maanaam procureur bu tiwaawan boobu ba léegi nag ñun ñu ngi soog a dégg ne euh, dafa am ay euh, mettital yu ñu leen teg wante euh, autorité judiciaire yi nga xamante ni ñoom lañu leen jébbal firndewuñu loolu waaw ci ci théorie moom loi bi encadré na loolu yëpp waaye mettital gi moom ci ay garde yi vue du guléet ñu koy dégg colonel Pape Diouf

Euh, de la sécurité ñuy prononcé wu ci formation wu force de sécurité yi wante suñu formation euh, damay firndeel askan wi ne ñi ciy wax ñëpp bu weesoo gendarmerie xamuñu ko xamuñu nu mu tëddee ndaxte formation boobu mu dale ko ci ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy cadre yi ak gendarme yi euh, ñi nga xamante ni foofu la gradu gendarmerie tàmbale formation la boo xamante ne nii bu wër la ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama formation bu wër la euh, dafa am li ñuy wax ci biir euh, formation gendarme yi euh, benn matière bu ñuy wax droit et devoir mooy sañ-sañ bi nga xamante ni moom la gendarme am ci liggéey biñ ko sant ak li nga xam ne ak yi nga xamante ni war na ko sàmm am na aussi comme gendarme yi ay militaire lañ li ñuy wax règlement de discipline générale boo xamante ni dafa am yoo xamante ni daf koy tere euh, bu loolu weesoo yi tamit muy cadre yi am na lu ñuy wax formation morale ak éthique et déontologie euh, sans compter nag li nga xamante ni code pénal ak code de procédure pénale moom la ñu teg nga xamante ni officier de police judiciaire yi nga xam ne gendarme yi ci lañ bokk ci yoon boobu la ñu war a jaar ngir def seen liggéey ba du ñu lor kenn lu dul def simplement li nga xam ne moom la loi yi li mu leen sant. ci mbirum tóobeen googee am na. nga ma am na benn activiste bi nga xamante ne moom nee na ni bi ñu ko jàppee xëy na dañ koo toroxal ne sax ba dañoo dugal drogue ci euh, wala ci poosam. waaw euh, loolu dama damay euh, dama leen di woo. ci seen xel rek. li nga xamante ni xel mën na mën na ko nangu. ki nga xamante ne nii moom mooy cadre. gendarmerie bi nga xam mom la ci baramu mhm. touma euh koku dafa nek li ñuy wax directeur opérationnel mom du ko xamanteni nii sax fay deglu ñi nga xamanteni nii ñoom la ñu jàpp ndaxte ci kanamu brigade tiwawon la ko jàppe muy wote nit ñi dajalo ngir song brigade bi ngir ñi ñu fa japp te ñu def naka sudul non. donc bi nga xamanteni dañu ko japp indiko diko jël audition am officier bi mu joxañ baaraamu tuuma koku bo sété procès verbal touram sax du ci ndax té mom bokku ci mom directeur opérationnel la ay commandant de brigade am buñu soxla ay moyen mon moo koy au commandement de la gendarmerie ñu joxe moyens mu daldi ko mettre à leur disposition di fexé nak ba ñom ñu jaar ci yoon <laughs> benen bi euh lan mo soxla di tek nit ay metital pour dico soutirer ban preuve nous soutirer dañu ko délit amul pour participation à une manifestation interdite muy woté ci réseaux sociaux yi euh, nit ñi brigade ñu ko amul ben ki nga ni procureur li ci euh, pour nous moy né muy gendarme muy keneen bu la tooñe da ngay dem ci autorité judiciaire yi daal di fa déposer plainte ñoom ñu daal di def liggéey bi ñu war a def ngir saytu li ngay wax ndax dëgg la am du dëgg bu ko defee ñu daal di jaarale yoon fi mu war a jaar. est-ce que donc kooku euh, nga may ma ma ma jeexal rek. Ah. kooku bu mën na jaar ci yoon boobu. léegi nag kilifay gendarmerie ñoom sur le principe saa suñu tegee. Euh, gendarme muy kilifa cadre wala gendarme yi nekk ci brigade yi tuuma ñun dañu am li nga xamante ni moom la ñuy wax inspection interne benn kilifa la kolonel bu mel ni man am sañ-sañ yu yu yu bëri boo xamante nii dañu ko naan demal nga càmbaral ma lii ndax liñ ciy wax dëgg la am du dëgg te moom kenn rek lay rendre compte mooy haut commandant de la gendarmerie. te loolu haut commandant de la gendarmerie mais justement loolu tax ci lu leer da ngeen ubbi ab enquête administrative ci wàllu woowee. mais enquête administrative boobu euh, gendarmerie ñoo koy def. ñi ñi ñi ca impliqué ñu tudd leen ci bokk. ak ay gendarme la est-ce que xel mënut xel mënut cee tey mënuñ ko woon donte sax noonu lay demee saa su ne mënuñ woon so soppi doxalin. déggoo li ma la wax dama la ki nga xamante ne nii moom moo ñëw ne dañu koo teg ay mettital dama ne fii muy yow muy journaliste muy gendarme muy keneen ku mu mënti doon ci biir réew mi bu fekkente ne dañu la def naka sudul noonu benn mbaxana rek moo am da ngay dem ci autorité judiciaire yi nga déposer plainte kooku am na avocat procès verbal audition bi ñu ko def moom avocat yor na ko procès verbal boobu leer na ma ne kenn tudd ci li nga xamante ni moom la ñu tudd avocat wam dina mën na ko confirmer le contraire wante li gendarmerie di def c'est une démarche bo c'est interne Nous non sommes pas Bala autorité judiciaire yi ñoom seen di jël dogal ñun dañuy jël bu ne amna gendarme da def nakatu te ak ko dañ koy sanctions disciplinaires bu ne donc enquête bi nga xamanteni la au commandant de la gendarmerie di def

déedéet man suufuma ko dama ne la li ma mën naa dellusi ci li ma la wax dama ne leen kooku tuumaa yooyu muy teg euh, ki mu ko teg dama ne la kooku bokkul ci enquête bi ci ñuy conduire enquête bi kooku kenn du ko bind xam nga procès verbal dañuy bind man gisuma procès verbal bi ndaxte kooku man bokkuma ci ñi nga xamante nii ñoom ñooy doxal enquête bi loolu diggante officier de police judiciaire yi ak procureur bi la mais dama ne loolu dafa mënul am parce que man gendarme laa jàng naa xam naa li ñu jàng xam naa ni ñuy doxe ni gendarmerie di doxe donc kooku rôle mooy directeur opérationnel donc kooku li muy wax ñun xel daf ko mënul nangu wante bu fekkonte ne dañu setal cadre gendarme boobu kon au commandement du ordonné enquête boo gisee mu ordonné enquête c'est que ñoom am nañ seen njot li ñuy xalaat mais dañu koy garde li nga xamanteni ni moom la enquête interne bi di firnde ñun lool lañuy japp Dong, donc fi mu toll ni amuñu position man dama leen di expliquer ni nga xamanteni ni moom la gendarmerie di doxé ci walu wowo ñu fàttali ni colonel euh, Pape Diouf euh, mooy euh, ganuk RFM matin colonel Pape Ibrahima Diouf porte-parole gendarmerie nationale mën nañoo tàbbi nak ci li nga xamni moy mooy li ñuy wax jëflante gi war diggante yeen ñi nga xamni ne yéen dëkk kaaraange réew mi ak askan wi nees mën def ba réroyé que yu ñu mel mëna ñak xeyna waaw euh, maa ngi lay gërëm di la sant ndaxte euh, loolu boo ma ci laajee donc yaakaar naa ne euh, loolu moo gën a am solo ci sama teewaay fii ndaxte sécurité boo gisee ñu koy doxal dañu koy doxal ngir njëriñu askan bi te loolu suñuy kilifa saa su ne duñu ko réeroo mbir dañuy ñaax di ñu rappeler tout le temps que ça ne sert ngay def production de sécurité bo xamantene ni nii dëppoowul li nga xamné askan wi mom lañ soxla au commandant de la gendarmerie bi tok fi mu toll ni moy général de division Jean Baptiste euh, da fay ñaax sa su commandant de légion yi nga xam ne ñoo nekk ci gox goxani commandant compagnie ñu dem vers les populations euh, les guides religieux les les les les chefs traditionnels euh, les les les élus locaux les organisations communautaires de base waxtaan ak ñoom dans le cadre ce qu'on appelle euh, ay contrats locaux de sécurité ba xam ñoom lan mooy seen lan la ñu yitewoo ci wàllu sécurité recueillir également seen collaboration yenn saay sax am na ay brigades de proximité yoo xamante ni euh, gendarmerie ak euh, élus locaux yi ñoom ñoo boole seen doole ngir taxawal ko ngir mun a gën a mën a saytu sécurité Euh, donc loolu mom moy démarche bi nga xamante mom lañuy la ñaax population benen bi euh, mooy li ñuy wax l'esprit de défense wala l'esprit de sécurité euh, sécurité ñun ñëpp ñoko bok ñun dañu ñu sas ñuy sol tenue diko doxal wante sénégalais yépp ko bok force de sécurité mënu ñu nekk fépp donc am ay contact yo xamante euh, comme vous marie gendarmerie numéro vert 800 0020, 20 nga si waxtu dina am uyu di la jokkol ak brigade bi nga ni mo a ngir mu d'ailleurs numéro au commandant de la gendarmerie bind directeur ARTP pour mu jox ñu numéro court numéro bo ne chiffre lay waaw hmm. ñu ñu non non non dina dina ñu ngi ci liggéey hmm. donc en principe numéro bi 112. Euh, lay donc bind nañ directeur ARTP ba mu répondre ñu donc mu ngi doxal li ci war auprès des opérateurs téléphoniques ndax numéro bob antu donc ngir ñu gën mëna yomb jot gendarmerie am hmm. également euh, centre opérationnel de la gendarmerie centre de renseignement et des opérations boo xamante également lolu mom moy rôleum mom moy euh, capter les demandes d'intervention les sollicitations d'intervention qui viennent de la population un peu partout et les retransmettre au euh, di leen diko brigade yi nga ñoo sur le terrain. mais fan la réeroo yi wara a nekk ba euh, yenn yi di am buñu dem sax bay song ay gendarmerie. waaw euh, yooyu am na fi ay euh, am am na ci ay cas dëgg la euh, day doon rek ay manifestation yoo xamante nii comme bii weesu. ca Baalu waaw waa am na foofu hmm. même fii Tooben amoon na bi nga xamante ni gendarme dañ fa njëkk dem am na onze gendarme yoo xamante nii dañ leen blessé ñi ñu arrêté dañ leen a arrêté ndax yoon bi ñu fa njëkkoon a dem. Euh, dañoo identifier ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo doon meneur ñoo doon mëne euh, rébellion bi violence yi voie de fait yi nga xam ne moom lañ doon teg gendarme yi fa demoon euh, gendarme yi waxtu boobu am na noo xamante nii mënoon nañ ko def te loi bi may na leen ko pour daal di rétablir l'ordre wala ñooñu nga xamante nii ñoom ñoo leen doon song mais tribunal bu kees li mu wax ci loola li mu wax mooy bénéfice du doute maanaam wóoru leen ni euh, xale yi euh, tribunal wante un officier de police judiciaire muy gendarme bu sur le terrain euh, bu jàppee nit rek dafay fekk mu am preuve ci li nga xamante ni lañ koy reproché ndaxte bu ko bu bu autorité euh, mun nañ leen a euh, dañ sans preuve wante euh, li bëgg procès pénal dafa am phase phase enquête de police bi donc bu nous constater infraction bu nous infraction dañ koy constater rassembler preuve yi ñi nga di parquet bu ñu paree suñu enquête daal di leen ko jébbal léegi nag principe opportunité poursuite mooy parke bi moom mooy seet ndax lii jar na topp am jarula topp donc loolu nag vraiment prérogative la boo xam ne dañ koy bàyyee parquet bi Euh, léegi est-ce que euh, yenn saay du répression bi ñuy gën di nemeeku euh, moo waral réero bi yenn saay contrairement à yenn doxalin yi nga xam ne dañu gis ay gendarme sax di ko di ko def ndax gisoon nañ fi ay jamono ñu amee ay jafe-jafe bu ñu faat ab étudiant ci dëkk ba mu cosaanoo am na gendarme bi jógoon pédagogie bi mu àndaloon ci waxtaan wa am na li mu mën a jur. waaw ba dalal nit ña. waaw pédagogie boobu day monte moo tax ma euh, gendarmerie dañu ko déssé xam mu tambali ci yéen journalistes yi man en tant que porte-parole dama leen di invité yéen sa su ne ku ci bind au commandant de la gendarmerie né ko damay def li wax immersion ci bir gendarmerie ñu daal di la expliquer brigade, nu ñuy doxe etc nu ñuy fonctionner leer na ma ne ñaar ñi ma jàkkaarloo di ngén am benen gis-gis ci gendarmerie dese ngeen xam gendarmerie tuuti euh, pédagogie boobu ngay wax kooku euh, demewul xelam kese loolu lañ ko jàngal loolu lañ ko jàngal li weesu yi tamit ba tax moom mu am taxawaay boobu gendarmerie daf koy teg ci yoon xam nga dafa am loi bu ñuy wax loi 70 37 du 13 octobre 1970 nga xamante nii moom mooy euh, teg charte yi nga xamante nii ci la ñuy sukkandiku Euh, pour jëfandikoo yenn jumtuwaay yi. ci ci ci dix secondes ndax waxtu bi jeex na euh, est-ce que am ngeen limub gendarme yu doy ak jumtukaay yu doy fii tool nii. waaw li mu san gendarme yi euh, dañ ciy sant yàlla ndaxte man balaa may nekk post bi ma nekk muy chef chaîne emploi opération dama nekkoon chef chaîne ressources humaines wante progression bi nga xamante ni moom la effectifu gendarmerie am

Fatek ñi mu àndal jàngeen jëf jërëjëf Babacar Fall moom la àndaloon ci invité